asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali leen seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis sur vidéo yi ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en olof euh, di la demander su fekkee abonné go c'est très simple nga cliquer bouton rouge nekk suuf vidéo bi euh, soo paree trois cloches notification yi nga cliquer bi ci kaw vidéo tey bi nag dañuy ñëw ci top secret lundi top secret lundi bu tey bi nag dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy vidéo TikTok vidéo TikTok nan la ñuy def ba mën koo monétiser mën ci gañe xaalis parce que gis nañ Sénégal ñu bari am nañ ay canal TikTok am ay canal TikTok yu fi dox sax bu ci gën a dox nekk hashtag senegal euh, boo xoolee bi ñu defee recherche ni ma def euh, TikTok euh, Sénégal TikTok def TikTok senegal gis nga vidéo bi nekk ci kaw gis nga hashtag Sénégal la te boo xoolee ci page bi di gis ñu am fi yeneen vidéo boo défilé gis nga voilà ak euh, euh, Pabzo TV tam ay TikTok am dox na ak seen comédie am na TikTok yu dox ak yooyu mais daal Hashtag Sénégal mu canal TikTok bu mag la ba am ñu bëri xam nañ ko léegi nag canal TikTok yi dafa benn problème bu majeur bu ci am mooy monétiser ko ak AdSense dafa difficile boo pour mu am 1000 abonnés ak 4000 heures du dara canal TikTok boo ko ubbee taf taf nga am 1000 abonnés 4000 heures parce que yu xorom yi ñu ciy def ak comédie yi ñu ciy def mooy tax waane nag pour nga monétiser ko moo nekk problème bu rëy rëy léegi ñu ñëw bugg leen ci wax nag ay astuces yoo xam ni bu ngeen ko si jaaree di ngeen mën a am canal TikTok te di ko mën a monétiser mu gën a yomb euh, léegi euh, bi ñu recherché ji nga euh, vidéo bi moo ñëw ci kanam moo ñëw ci kam léegi ñu dem dugg ci kanaal bi. wàññi son bi. ma bàyyi nag musique mu jàll parce que mën na tax indi problème ci sama euh, euh, vidéo bi pour monétisation parce que gis nga boo seetloo euh, vidéo bi muy daw yaa ngi dégg soow mbalax nga si dégg léegi nag loolu mooy principal problème ci li nga xamante ne mooy vidéo TikTok yi xool déglul gis nga xam yaa ngi dégg am na koy way ci suuf noonu ñu wane waa ji muy fecc voilà ñu dem ci beneen page kii tam yaa ngi gis mu ngi def tiktok mi xam nga waxul des fois tam problème bi day nekk comme kenn génn di def tiktok nii mais wax bi muy wax mu nekk extrait bu mu jëlee si pièce théâtre wala film wala téléfilm wala yu demee noonu mu nekk par lu ñu si ëpp dañuy jël par exemple waxu waaju baax mu wax benn wax bu xorom ci benn pièce euh, bi ñuy joué ci théâtre Adja léegi nit ñi jël ko reprendre ko yow nga jël wax si kaw def ko tiktok léegi nag vidéo yooyu boo ko defee nga jël musique gu jàmbur nga tiktok ci wala nga jël euh, waxu jàmbur bu nekk ci ab pièce théâtrale nga tiktok si yooyu boo koy monétiser li tax muy difficile mooy loolu mooy problème bi problème mooy sa yow sa vidéo la yaa filmer sa bopp yaa ko moom image bi sa image la mais fond sonore bi nga moomul musique bi ñu ci def moomoo ko wala wax ji nga ci def moomoo ko YouTube loolu lay détecté gis ni musique bi ñu ci def musique gu jàmbur la mu détecté ko du loo bàyyi nga monétiser ko wala wax bi ñu ci def mu détecté vidéo bi audio bi ci ne dafa nekk ci vidéo yu bëri ci YouTube mu ne la réutilisation de contenu voilà Pré principal problème mu monétiser canal euh, TikTok mooy réutilisation de contenu. di nga kii xam nga match de football la son bi mu teg ci suuf. si ginnaaw dégguma leen. waaw kii moom xam nga. vidéo original la moom ñoom ñuy waxal seen bopp voilà TikTok yi toujours nii la dañuy ñambaat vidéo yu bari yu bokkul. kii musique la def. kii mi ngi Njaago mu ngi def musique. am na ñoo xam nag mun nañ parvenir monétiser euh, vidéo TikTok mais dafa difficile monétiser vidéo TikTok voilà surtout léegi bu njëkk ba sax YouTube am na ay mesures yu muy jël yoo xam jëru ko woon peut doon na gën a yomb mais léegi ak réutilisation de contenu bi ak problème mu droit d'auteur yi ak euh, problème monétisation yi moo tax léegi dafa compliqué léegi ñu dugg ci ci li nga xam ne mooy canal bi. boo xoolee Astak Sénégal. ma jàpp sama yaay jàpp sama baay. nga yaa ngi dugg rek yaa ngi dégg euh, rab voilà te commencé gul fen yaa ngi dégg ci nga rap. léegi lan mi temps léegi. sa jabar du xoot. léegi euh, mu ngi am vingt trois mille euh, quatre cent après dinañ xool bu fekkee bu fekkoon exemple wala bu fekkee borom mi ngi koy monétiser wala bu fekkoon mi ngi koy monétiser ñaata la ci mën di gagné pour nga xam canal yu mel ni soo ko defee ba monétiser ko li nga ci mën a am potentiel bu mu mën am quoi waa gis naa ni paramétrage am bi ma xool vidéo playlist mm, vidéo ñu xool nga def na vidéo yu bëri te ji nga vidéo euh, canal TikTok yi nga vidéo yi dafay dafay nekk vidéo yoo xam day attiré parce que dañuy def sélectionné photo yu bari yu bokkul te toujours photo yi dañuy jël position yu yaakaar moo gën a rafet wala mooy gën a tax nit ñi mën a cliquer waaw moo tax vidéo TikTok yi toujours dañuy am ay euh, clic yu bëri li si ëpp gis nga playlist gis nga bu ñu ñëwee fii xoola vidéo balaa ñuy romb maa ngi gis ni kanaal bi vidéo bi ñu bi ñu fi njëkk si ñu def mu nam nag mu defoon ay vidéo supprimé ko mais vidéo yi nekk ci kanaal bi bi ci njëkk a dugg mi ngi ni un am léegi ñu ñëw xool bi ci mujjee dugg mi ngi ne un mois un bi mu gëjee dugal vidéo borom canal bi un mois te canal boo xam ne yaa ngi ci gagné normal sa weer nga gagné xam nga doo toog un mois te dugaloo vidéo da ngay continuer dugal pour di gagné plus moo tax du am naa ay duddaal ni borom mi ngi koy monétiser voilà. léegi canal bi moo ngi ko créé ji nga actif depuis le 28 mai 2019 waaw su logique na ak kii bu am un an parce que canal bi euh, un an yi tegal na voilà mai bi passé la mun un an rond kon euh, logique na voilà léegi bon post communiqué jaru ko playlist gis naa ni créé wul playlist playlist par défaut bi moo fi nekk voilà mooy benn bi nga xam ne presque mooy playlist créé comme ni ma la ko waxee vidéo ñëw nañ fii ak ay tamit voilà baax na tuuti mais def na vidéo intro voilà mais fii la la chargé wul mais du garaaw ko voilà c'est tolérable léegi kanaal euh, bi par exemple tey euh, man su ma ko moomoon ma bëgg ko monétiser lu may def lu simple la lu ma leen di conseil su ngeen bëggee ubbi canal TikTok di ko monétiser man su ma defaroon canal TikTok bëgg ko monétiser lu may njëkk a def mooy vidéo yi ma siy def mu nekk vidéo TikTok damay damay jël. vidéo TikTok yoo xamante ni ay wax la ñuy TikTok un waaw ay wax la ñuy TikTok du ma du ma dugal benn vidéo boo xam ni boroom dafa TikTok woy way moom da nga koy fàtte ak côté jarul jarul jéem a TikTok jarul jéem a dugal par exemple vidéo bi su ma ko téléchargé woon xam nga ay TikTok yu bëri lañ ci def compilation vidéo yi parties yi nga xam ne ay seeni borom dañoo TikTok ay musique dama koy dindi supprimer ko yooyu moom fàtte ko yi nga am nag seeni borom dañoo TikTok ay wayu ay wax yu xorom yu ñu wax ci internet moo xam ne ay comédien ñoo ko wax mu nekk ay wax yoo xam ni si pièce théâtrale lañ ko jël wax ci wax ju xorom yooyu yooyu mun naa ko jël parce que yooyu am mun nga ci def coppite tuuti ak tamit nga fexe mais loolu ñëpp duñ ko mën nag mais pour benn benn yi nga xam ne mën nañ ko ko ñu defar seeni propre TikTok par exemple yow ngay TikTok sa TikTok bopp yoo xam ni comédie bi nga bëgg jël TikTok si TikTok doo jël audio comédie bi dugal ko mais da koy déglu ba kër waa ji li muy wax ci ci comédie bi nga imité ko wax ko ni mu koy waxee son xam ne lool na xam naa comédiens yi ñoo ci ñoo ci loom lay gën a yomb pour ñu def ko parce que loolu ñëpp tamit voilà ñam dongu comédien mën ñoo koy mën nga jël waa ji li mu wax euh, mais tam c'est normal parce que nekkul façon canal yëpp rek boo gis rek ñëpp ko ko rubi non dafa canal TikTok moom boo xool affaire comédie la pour comédiens yi sax la gën a nekk nag tamit voilà euh, nga jël euh, wax bi nga këwru ko yow après nga waxal ko sa bopp nga am ne yaa koy waxal sa bopp toppandoo waa comme ni mu ko waxee filmer sa bopp def ko mu xorom ce qui fait dafay nekk sa propre voix sa vidéo originale la parce que sa téléphone sa voix originale la yooyu moom da koy monétiser sans problème yi xam ne comme ni ma la partie yoo xam ne am na ñoo xam dañoo ko dañoo jël TikTok loo xam ni waxu jàmbur la soo koy modifier vidéo bi soo ko daggee nga dagg ko comme ni ñu ko monté partie par partie vidéo par vidéo les vidéos yi am son nga dindi yi amul son nga mélanger nga inversé ko bi jiitoon ngeen di ko ci kanam bi nekkoon ci kanam ngeen di ko ci digg bi comme noonu mélanger ko ba pare soo leen dugalee ba monter leen nga dugal ci fond sonore nga def ci benn musique YouTube bu libre de droit boo xam ni fond sonore lay nekk ce qui fait que ñu TikTok bi buy TikTok di wax au lieu YouTube bu koy analyser mu détecter rek audio bi xam ba xam da nga copier audio wala copier woo ko soo ci dugalee fond sonore musique musique fond sonore ba nga dugal nga wàññi ko tuuti ba ñuy dégg nag li ñuy TikTok day altérer YouTube buy def analyse da koy altérer par euh, par exemple tey bu doon wax bi rek la YouTube di analyser musique da ciy àndaale ce qui fait que YouTube bu ko analyser day gis ni band ojo bi nekk ci vidéo bi ak bi nekk ci yeneen vidéo bokkul parce que seen bande ojo wax bi dong la dégg bii déggaale na ci son son bi mooy altérer analyse bi ce qui fait que YouTube bu ko analyser ñaari ojo yi duñ bokk parce que da am son bi amul son son bee koy altérer bu ko defee audio boobu day mën a jàll donte da nga copier même vidéo yi. léegi vidéo ci biir vidéo yi tamit soo mënee nga ciy yokk ay effet ay effet image yoo ay affaires yoo xam ne da koy rafetal image yi koy rafetal yoo xam ni da nga ko yokk comme ay papillon ay affaires yoo xam ni amul woon ci image bi nga jëkk a jël ce qui YouTube bu defee analyse bi nga analyse bu scanner bu bi parce que image da koy scanner bu scanner image bi ñaari image dañuy am différence duñ bokk voilà ce qui seen système bi analyser vidéo yi danga koy tromper du mën a xàmmee sa vidéo bi nga dugal ak bi nga ko copier ndax ñoo bokk waaw noonu mooy système bi nga xam ne boo ko defee efficace na pour nga mën a monétiser ay vidéo TikTok TikTok yi am musique comme ni ma la xam moom nga fàtte ko parce que mënoo jël musique mélange ci beneen musique du nekkati musique voilà loolu mooy ko def noonu image bi kon def ni ma la wax son bi nga def ni après nga yokk ci nag sa ay TikTok bopp yoo xamante ni wala soo ko mënul soo amee xarit ba am comédien la mën na ko def nga koy filmer muy ay TikTok TikTok yooyu nga ko ci yokk yoo xam ni moom du am wax du am dara lépp original lay nekk waa ji mooy toppandoo ay nit di wax comme ni ñuy waxee di di def euh, vidéo TikTok mu am originalité nga ko si jaxase ce qui fait canal dina dina dox te di nga ko mën a monétiser sans jafe-jafe loolu daal mooy conseil bi nga xam ne am naa ko ci canal wu ñuy def euh, ñu bëgg xam ni TikTok daal mooy seen option ñu bëgg ko monétiser loolu laa leen di euh, conseiller ñu ñu def ko léegi canal bi nag à peu ñaata la war a mën a gagné par weer soo amoon canal bi bu doon tey canal bu ñuy monétiser li nii à ñaata la mën a gañe loolu la ñuy xool nag léegi léegi dañuy dem ubbi social blade waaw comme ni ngeen ko xamee social blade xam ngeen ko ñuy suivre top secret euh, xam nañ ko léegi boobee social blade léegi lan la ñuy def ñu recherche ko par nom mooy gën a gaaw ñuy copie lien mënoon nañ copier lien canal directement tam bu ñu neexee fii ci kaw bu la neex tam nga cliquer nga tàppee euh, lii nii hashtag Sénégal nga dem recherche ko dina indi yeneen mais dina génnaale waaw ñaari voies yëpp ñu won la wala nga ñëw coller ko fii hashtag Sénégal nga canal bu tudd hashtag Sénégal dina génn di nga ci gisaale bi nga xam ne moom ngay wër voilà mi ngi nii hashtag Sénégal mi ngi ci kaw nga cliqué ko moom nga soxla nga cliqué ko boo cliqué gis nga gis nga vidéo bi mujjee dugal la lay indil nii à droite gis nga heure bi heure bi ci kaw nii li nga moom la lay indil nii donc comme ni comme ni génn si YouTube rek la ko génneel voilà boo xoolee ji nga 49 vidéo rek moo fi nekk ci canal bi 49 vidéo abonné yi 23 000 Euh, quatre cent abonnés la am voilà nombre de vues mu am bi mu ci vidéo total vidéo yi nekk nekk publique deux millions deux cent et quelques euh, pays bi mu sélectionné ni canal fal nekki nga Sénégal la ak type de canal bi waroon na ko sélectionné def ko mais loolu paramétrage interne la su ko sélectionné dina ko bind fii euh, mi ngi ko créé ji nga le 28 mai 2019 voilà léegi gis nga boo xoolee weer bu mujj bi trent derniers jours yi bokk 30 derniers jour yi moo ngi ci am 1600 abonnés léegi gis nga mu ngi ñu defal fii lii yëpp moo ci amal importance voilà mi ngi def fii kanaal bi euh, dina gagné par weer entre cinquante cinq bu fekkee ni maanaam tuuti na ba tuuti ba tuuti ba tuuti dina gañe cinquante 55 dollars par weer voilà bu bëree ba bëri dina gagné 872 dollars waaw ah, li wóor mooy 872 dollars yi moom. peut-être eggu fi parce que canal bu nekk Sénégal ay sénégalais kese ñu ëpp lu koy seetaan en général pour mu atteindre seuil maximum bi dafay jafe waaye seuil minimum bi moom mën na am romb ko voilà dina ko romb peut-être dina dem peut-être ay 100 wala ay euh, ba ba 100 dollars ba bopp ko tuuti voilà ba 200 peut-être voilà mais daal en tout cas ci diggante bi lay nekk mais li leer mooy du egg 800 parce que 800 bu doon canal boo xam ne par exemple tey euh, canal nekk canal boo xam ne anglais la. am information am fi teg teg mu am si nombre de abonnés yeeg yëpp mu am vidéo yi ñu koy seetaan États-Unis c'est sur que day gagné lii par weer voilà wala plus voilà mën na gagné lii par weer mais bu dee fii la nga xam ni dañuy calculer revenu minimum bi parce que mooy lan mooy boo tegee fii ci euh, point d'interrogation bu ndaw bi information bi mu ubbi nii gis nga ko <coughs> moo ngi la defal calcul bi mi ngi ko teg su fekkee dafa nekk gis nga 0 virgule 25 voilà calcul bi mi ngi ko teg su fekkee da ngay gagné si 1000 vues yu nekk am nga si 4 dollars voilà te 1000 vues mën na dem ba cinq dollars fii tam mën na ñëw ba 0,10 voilà loolu tam mooy affaire nga xamante noonu lii mooy li nga xamante ni canal bi mën na ko gagné su fekkee mi ngi monétiser waaye nag ragal naa muy njort naa ni boo moytul monétiser wul parce que bu doon monétiser yaakaaruma mu toog un mois te dugalul vidéo voilà li mooy top secret bi ñu leen indiloon ci vidéo ñi nga xam dañuy def TikTok su fekkee bëgg nañ daal canal TikTok ñu ubbi ko monétiser ko facilement lu ma leen wax nii moom il faut nga def ko waa parce que canal TikTok soo jëlee rek TikTok normal yi rek yi am normal di ko dugal normal pour nga monétiser ko du ma ne mënul nekk parce que naa nga mënul nekk man moom mu YouTube du ma ko wax parce que loolu peut-être am na ñu koy def di monétiser jàll rëcc rëcc mbaal mi parce que géej moom boo mbaal mbaal mbaal dina am jën yu rëcc voilà. mais monétiser ko dafa jafe trop trop trop trop trop lu jafe la utilisation de contenu lañ lay wax voilà mais nag fi ma la wax ni boo fa jaaree peut-être euh, mu tane TikTok yi am way moom il faut nga jéem koo génne sa bopp waaw def ko ni ma la ko waxee teg teg rek soo ko defee incha allah mën na am nga am chance su mën a monétiser canal TikTok comme mooy sa option bi nga xam ni moom nga tànn. vidéo top secret lundi tay si loolu la ñëwoon muy hashtag Sénégal la ñëwoon présenté leen canal bi euh, ñi nga xam tam dañoo bëgg def ay vidéo TikTok. ñu te ñu bëgg ko def ñu xam bala ñu si dugg di ci sonn li ma si wax ni ñu bàyyi ci xel xam ni boo jëlee copier vidéo TikTok yi am biir TikTok directement rek ñëw def ko YouTube bis boo demee ba matal monétisation tam soo ko jëlee copie coller teg teg doo ko mën a monétiser loolu mu leer ci sa bopp tamit ko voilà il faut nga def ci ay coppite il faut nga liggéey ci pour mën ko monétiser kon Top Secret lënd bi fii lañ koy yemale leen sant di leen gërëm di leen joxaat euh, euh, dig daje si beneen vidéo Top Secret Lundi bi di ñëw incha allahu rabbi Ah, suba dina ñëw ci première vidéo comme niñ leen ko waxee woon ci comment gagner de l'argent sur internet waaw ah, loolu vidéo yooyu suba lañ koy commencé incha allah rabbi mu yeneen façon yoo xam ni mën nga koy utiliser moo xam canal YouTube la nga koy gañee neneen nu bokkul ak monétisation su ko defee di su fekkee daal yow euh, am nga option am na yeneen canal yoo xam ne mën nga leen ubbi mën nga ubbi canal YouTube boo xam ni leer na la mënoo ko monétiser mais mën nga si gañee xaalis na neen waaw bu suba première vidéo bi nag si loolu lañ koy commencé comme YouTube lañ daan yëngatu ñu wane ak YouTube nan nga mën a gañee xaalis si beneen plateforme saa nga monétiser lii nga ne mooy ak AdSense incha allah rabi suba di lañ ko dugal. di la demande rek su fekkee abonné goo c'est très simple bouton bu rouge bi nekk si vidéo bi comme nii comme hashtag Sénégal bi abonné wu ma si mais comme nii nga cliqué boo cliqué nii am na cloche buy génn nga cliqué cloche bi soo cliqué cloche ba pare nga ñëw fii tout.